بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي بقاء به لي فيك يا الله بسم الإله إفن الأدار يا الله سفي البقاء به لي فيك يا الله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 alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa maulana muhammadin il makin wa ala alihi wa sahbihi sabi ridwani wa tamkin rabbi israh li sadri wa yasir li ya amri wa ahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli barke borom Tuubaa asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki téléspectateurs yi yu télévision Lamfal TV mbokk yi nga xam ne ñooñu baaxoo di bàyyi xel seen émission bii de ëttu murit te di ko amal dibéer ju jot bu bu fukki waxtu jotee ci guddi ngeen di ci miin ànd ak seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll mu nekk ci micro bi jàkkaarloo ci wàllu machine bi alxaaji Fallou Sylla ñu am mbégte ànd ak yéen di leen nuyu di jiital ci nuyoo boobu ki yàlla teg ci bopp yoonu murit mu di sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi sunu boroom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram kàttanal ko ba naal yi mu naalal lislaam sunu boroom may ko ci ndamul mu àggale ko ba ñu jàng ko ci ay ay teewaayam ba mu génne ci ay lijaasa te ñu ànd kook moom te am ci ngërëmul sëriñ bi di jaare mbooleem ñi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel dibeer ju jot boo koy tey seen émission ëttu murit mu dalal benn banqaas ci daayira bu mag bi nga xam ne moo tudd nooru daare ni Touba ca kanam nuy siyaar sëriñ Habibullah ibnu Cheikh Mahamadul Fadal ak magam alxaaji sëriñ Tàkko Mbàkke mu Cheikh Mahamadul Fadal nuy bu baax sëriñ Abdul Ahad Mbàkke mu sëriñ Abibu siyaar boobu nag day wàcc si ci sëriñ Abdou Fatah Guèye mi nga xam ne mooy président Touba ci kanam ñu teg ko ci loxol Cheikh Mouhamadou Mourtada moom Cheikh Abdoul Fatah moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñu bànqaas bii ñu dalal tey te muy euh, bànqaasu social Touba ci kanam mbokk yi ñu dalal ci sëriñ Mourtada Seck sëriñ Mourtada Seck di ki nga xam ne lépp lu jëm jëm ci wàllu liggéeyub Touba ci kanam lu ci ëpp ci loxoom lay jaar waaye rawatina nag banqaas bii di social te mu yor lu jëm ci wàllu saytu doxin wa ci denc ko ak bind ko ak di ko génne mu fas yéene ñëw ak nun tey ci social bi ñuy waajal te moo di tabaski bokki nag social bala ñu ciy dugg ñu xam ne mooy def ngir yàlla social mooy dimbalee ma ne na ko tudde infaq fi mooy dépense sa alal ci yoonu yàlla su fekkee ne ci socialu Touba ci kanam la yow mi bëgg a séddale sa alal joxe ko ngir yàlla te joxe ko ci ak maandu boo ko jaaree ci social Touba ci kanam da ko am na nga ko bëggee te loolu <clears throat> dana leer ci biir waxtaan wi nga xam ne moom la seq ñu ko def nag ci ay étape lu mel ne màggalu Touba socialu màggalu Touba lu mel ne socialu nawet day am lu mel ne socialu koor day am. lu mel ne social lu tabaski day am ak yeneeni social yu bari yoo xam ne événement yoo xam ne bu jubee néew doole yi nga xam ne bokk nañ ci mbooloo mi waaye seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo ñu tubaa ca kanam taxaw ba seen loxo mën a jot seen ginnaaw ci li Sëriñ Touba waxoon ne na nga nekk na nga na ngay ci man ñi nga xam ne ñoo ñàkk ndey ak ñàkk baay ñu tudd leen ay jirim ak ay miskin ñooñu day naa taxaw seen taxawaayu baay taxawaay taxawaayu seenub yaay ba la leen seen baay ak seen yaay daan defal ma mën leen a defal lu ëpp loola. loolu nag mooy liggéeyub Touba ci kanam kon dañuy dalal sëñ Mourtala Seck bàyyi ko mu nuyoo ak yéen su ko defee rek ñu fas yéene ànd ak moom nag ci li nga xam ne moom lañ dëgmal te mooy socialu tabaski ba ñi nga xam ne bëgg nañoo dimbali ab jullit te def ko ngir yàlla te kenn bañ koo xam. ñu xam ne buñ ko jaareelee ci Touba kanam danañ ko am niñ ko bëggee Cheikh Mamadou Mourtala. asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu euh, te di leen ziare di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ mu Mbacké mi nga xamante ni mooy xalif yi kullu murit di ñaan sunu borom mu guddal fanam te dolli ko ak wér. waaye di euh, teg loxo nuyoo boobu ci euh, sunu kilifa bi nga xamante ne moom moo jiite euh, kuréel gii di kuréel Touba ca kanam di sëriñ Abibu Mbàkke moom sëriñ Fàllu jaarale ko it ci jëwrinam bi nga xamante ne moom la doxale digganteem ak nun muy sëriñ Abdoulahad Mbàkke moom sëriñ Abibu mu mag ma ci noonu it dañuy nuyu képp ku bokk ci Touba ca kanam en tant que association wala en tant que ONG di ko jaarale it ci euh, loxo président bi di sëriñ Abdou Fatah Guèye te buñ ko ci jaaralee dana dem ci bépp kilifa ba nga xamante ni ci wàllu administration yaa ngi ci biir euh, liggéey boobu waaye di ziar ak gërëm sëriñ fàllu Galass Syll la mi nga xamante ni moo ñu dalal ci euh, émission bi di ziar tamit képp ka nga xamante ne rek yaa ngi yëngu ci biir commission bii nga xamante ne benn banqaas la ci banqaas yi nga xamante ne ñoom ñoo séq ñoom ñoo nekk ci biir Touba ca kanam euh, di jiital ci ziar boobu nag nga xamante ni ki nga xamante ni moom mooy kilifa social wala kilifa commission sociale muy sëriñ euh, Mourtala Mbacke moom sëriñ Abdou Fatah moom sëriñ Fallou kon sëñ Fallou ñu ngi lay ziar bu baax di ziar kilifa yi nga xamante ne ñu ngi teewlu jotaay bi ak mbokki taale bi nga xamante ne ñu ngi teewlu jotaay bi ci biir réew mi ak ci bitim réew. <clears throat> jërëjëf sëñ Mourtada kon rek ñu bëggoon a xam social bi nga xam ne moom la Touba Ca Kanam bi dox ak néew doole yi banqaas social lan mooy seen liggéey fan la tàmbalee ak fan la yem ak ci ñan la jëm. waa sëñ Fall ñu ngi lay ziar bu baax te di la jaajëfal ci laaj bu am solo boobu social bu ñu ko doon tënk dañu naan moom mooy Touba Ca Kanam ndax Touba Ca Kanam jëfam bi yépp social la. lenn rek moom mooy xaw am tuuti ak wuute mooy ne social dañ ko dañ koo sàkk ci biir commission bi ci biir euh, association bi wala ci biir kuréel gi ngir mu gën a mën a jege ak askan wi euh, liggéeyam nag nekk na ci ay fànn yu yaatu fànn yi xaw naa bari li tax mu xaw a bari it lenn rek la ndax euh, xam nañ ne dëkk bii ñu nekk di tuubaa suñu jëloon téeméer bu ci nekk juróom-ñeent fukk yi bokk nañ ci way ñàkk yi kon liggéeyam yépp day day day day day aju ci dimbal gi nga xamante ni noonu la euh, nit ki war a dimbalee moroomam noonu la jullit bi war a dimbalee moroomam mi nga xamante ni yàlla xéewalewu ko lam ko jox kon loolu moom mooy liggéeyu social daf koo xaaj nag ci ay ay mbir yi nga xamante ni xaw naa xaw naa fasantikoo mën nañ caa lim rek li ci jëm ci wàllu tawat ñi nga xamante ni yàlla dafa dogal ñu am jafe-jafe yaram war a faju te euh, loxo ya jotut ginnaaw ñoo it social da leen di jàppale lool benn benn la ci la muy def euh, gone yi nga xamante ne yàlla dafay dogal ñuy bëgg liggéey te yenn saa yi muy xaw a jafe yenn saa yi dina am lu ñu leen di jàppale donte loolu nekkagut lu ñu lu ñu yaatal lool lool waaye social mu ngi ci mu ngi ciy jéem di ci def ay ay jéego euh, gannaaw loolu it gis nañ ne ñu baree bari bàyyi nañ seen dëkki maam ñëw fekk ci sëriñ bi ndax eh, cofeel gu ñu am ci moom yaakaar gu ñu am ci ñoom yàlla dogal bu ñu fi ñëwee yenn saa dañuy dem ca eh, sancaan ya fañ koy tuddee seen nekkin dafay xaw a doy yooyu social yenn saa yi dana leen di jàppale ci lu jëm ci ay logement logement yooyu nag yu xaw a yem lay doon lu mel ni néeg wanag ak eh, espace ba nga xamante ne danañ ca mën a danañ ca mën a toog yooyu mu ngi ci mu ngi ciy jéem a dox ay jéego donte boobu it nekkagut bu yaatu ndax euh, koom yi nga xamante ne moom moo ko war a def xaw naa néew ci wàllu euh, sociale bi euh, leneen li nga xamante ne it sociale mu ngi ci mu ngi ciy góorgóorlu mooy événement yi nga xamante ni jullit bi daf koo am muy korite muy koor muy tabaski muy màggal ci nun muridi yàlla day dogal ne social bi dina am ya nga xamante ne da ko cay def lam cay jublu rek mooy euh, dafa nekk jamono yi it ñëpp war ci am mbégte te am na ci euh, jullit yi am na ci murit yi ña nga xamante ni bis boobu bu ñëwee danañ am jafe-jafe ngir euh, mbégte moomu ñu mën koo yaatal ci njaboot gi mm-hmm. ñooñu nag dañuy góor góorlu ak la ñu am akas néew di leen ci jàppale ba ànd ko murit yépp nag ndax ñoom ñoo koy joxe mm-hmm. ba kenn ku ci nekk la nga ca la la ca yàlla wërsëgalal ñu mën la ko ñu mën la koo jox mm-hmm. kon mun nañ ne ci tënk loolu moom mooy li nga xamante ni moom la sociale di di di di yëngu euh, ci biir kuréel gi. Mm-hmm. jërëjëf euh, sëñ Mourtala euh, <clears throat> dégg nañ fi nga wax lu jëm ci wàllu paj mi ñi nga xam ne dañoo wéradi social engagement yi ni jël ci ñoom dégg nañ nga jëm ci lu jëm ci wàllu ñàkk xëy mi engagement yi ci sociale di def. dégg nañ nga jëm lu jëm ci wàllu dëkkuwaay yi nga xam ne ñàkk na li ci social di def dégg nañ nga jëm ci lu jëm ci wàllu événement yi te loolu toujours lay am day mel ni it am na lu jëm ci wàllu daara yi loolu boo dellusiwaatee ci li sëriñ bi doon ñaan wal tubassir bi yataama dawaaman mooy ndimbal luy sax dàq lay doon mbégte moo xam ne duñ la dimbale ren déwén ñu bañ koo def dawaaman la insihim mu fàtteloo leen abaahum seen bàyyi kulla xiini waxtu wu dañuy fexe ba waxtu wu ne la nekkoon seen jafe am solution bu ko mën a régler sëñ Tuubaa régler ko kon buñ bëggoon a ñëw ci ndimbal yi ngeen di def ci wàllu ñu wéradi boo ma ci mënoon a lu gàtt rek nga xam ne danañ xam ne fii la social jëm ci tawat yi ak xeeti tawat yi nga xam ne am na. waa ci loolu euh, wàllu tawat yi mm, mën nañ cee tënk lu gàtt rek waaye loolu nga may ma tuuti rek bala ñu cee tënk ñu xam ne euh, tawat yi day bari. Hmm. tawat yu baree bari wala fànn yu bari bari la nit ñi di indi. Euh, loolu it koy indi ñëpp dañuy gis ne ñu koy yelloo la ñuy doon hmm. ndax nekkul ne kayit bi day ñëw rek ñu def ci lañ ca war a def. waaye danañ ci defi gëstu ba xam ne eh, ki indi kayit bi soxla ko ko jàppale ci am faj loxoom da koo jote wut moo tax mu koy sàkku eh, yooyu nag xaw na yaatu eh, li ko tàmbalee ci ay opération ñëw nañ ba ci ay analyse ba ci ay yi nga xamante ni moo gën a jege yooyu yëpp de social bi da ci da ciy jéem a jàppale mbokki taalibe yi nga xamante ne dañ ko yittewoo nekkagut nag lu yaatu ba nga xamante ni mën naa daj Sénégal wala mën naa daj région de Diourbel waaye dañ ko tënkandeegum rek ci biir Touba li ko waral nag mooy ne euh, koppar ya nga xamante ne moom moo ko war a def social bi amagut lu toll noonu mbokki taalibe yi ñu ngi ciy barkeelu bu baax waaye nag euh, li nga xamante ne moom moo war a tax mu gën a yaatu ba fu waay nekk muy jullit muy murit muy ku mën di doon ñu mën koy jàppale ci social bi loolu dafa dafa dafa dafa xaw a des. Mm-hmm. moo tax ñu ngi ciy góorlu daal waaye foofu lañ ci euh, taxawandeegu. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Mourtala kon yaakaar naa ne foofu doy naa taxaweegul ndax itam euh, li nga doon wax lu jëm ci wàllu ñi néew doole ci ñëw ci dëkk bi te amuñu fu ñu dëkk. Mm-hmm. foofu it fan la ci social toll. foofu moom moom la mën a jàpp ne mooy fànn bi gën a yaatu ci liggéeyu social ndax bu ñu xoolee dañuy mën nañoo xam ne Touba gi kenn dëkku fi. Mm-hmm. ñu ci baree bari dañu bàyyi seeni dëkk maam ñëw fekk ñëw fekk si sëriñ bi. ñu ëpp ca ñooñe it ba ñu ñëwee euh, nekkin wi ci tàmbali du demee du demee noonu hmm. ba tax na seeni seeni nekkuwaay day doon lu jafe-jafe ci euh, ci ci dund hmm. day doon seen day doon jafe-jafe it ca euh, barab ya nga xamante ne fa la ñuy fa la ñuy yeewoo hmm. li ëpp ci malaat yi ñi xamante ne ñu ngi ñu ngi koy wax yenn saa yi day bàyyikoo foofu lu jëm ci ordonnance yeeg opération yeeg yu mel noonu day day bàyyikoo ci day bàyyikoo ci ñooñu waaye bokk na ci li nga xamante ni euh, moom la ñuy gën di yaatal ci ñoom mooy programme bii ñu jëm muy tabaski ndax it euh, liñ ci li ëpp ci liñ ciy laaj muy yëre yi nga xamante ne moom la ñuy laaj mbokki di ko joxewaat ak tissu yi nga xamante ne moom la ñuy jox sunu mbokki tailleur yi ñu leen di santaal sant bu baax a baax ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy liggéey ndax dañuy bu ñu leen joxee tissu danañ ko ñaw lay dem ca ñaw ba lépp ñoom ñoo koy def te dañ koy jaayanteeg sëriñ bi te duñ ci fayee ko dara loolu nga xamante ne it ñoom ñu ngi koy def dañ koy dañ koy dañ dañ koy jëlaat yóbbu ko ca ñi nga xamante ne ñooy sancaan yi yàlla dogal euh, seen loxo ñàkk jot seen seen ginnaaw euh, li wax nañ léegi ba tudd ay ay néeg ba tudd ay logement loolu it la ci ëpp ca ñoom lay dem ndax it euh, ku bàyyi sa lépp ñëw fekk ci sëriñ bi nekk fa nga xamante ni barabu suturukaay am amu fa ba yenn saa yi dañ ngay am ay ay seede sax nga xamante nit ki danaan la su ma demoon ba soxla sama bopp bàyyi ba ñëpp tëdd may doo a génn mm-hmm. mu nekk lu metti lool ci dëkk bi te ñu gis ne euh, mën nañ cee jàpp moo tax sociale di ci euh, dugalanti loxoom te ciy tàllal loxo ñëpp it ba ñu gën koo mën a yaatal ba kenn dootul jàmbat loolu ci ci ci biir dëkk bi mm-hmm. euh, ba tey it buñ jógee ci wàllu koor gi koor gi xam nañ ne dépense yi day gën a yokk ci ci ci ci ci borom kër yi mm-hmm. moo tax it social da ciy da ciy góorgóorlu Euh, di leen di leen jàppale ni leen di jàppale it mooy la ñuy gën a yittewoo ci jamono jooju mooy ak dund. Euh, ba famille bu ci nekk dana am la nga xamante ne dana ko fa dugal ci ceeb dana ko fa dugal ci suukar dana ko fa dugal ci koppar yi nga xamante ni dana mën a jàppale euh, mbokki taalib yooyu. ba ci korite gi nga xamante ni dafa bokk ci iid yi ku ci nekk war cee yaatal ak sa njaboot mu mu nekk mbégte ci ñëpp. loolu it mu ngi ciy def ay jéego di leen jàppale ci la nga xamante ni kuñ ko jox. soo génnee di nga mën a dinga mën a yëg it bi bu baax yaag sa yaag sa njaboot ba doo ci xalaata dem fenn di ko sàkku ci waaw yooyu yooyu daal ñu ngi ciy ñu ngi ciy gën a jàppalante ak suñu mbokk taalibe yi nga xamante ne ñoo bàyyi ko fa sori ñëw te seen loxo jotut seen ginnaaw. <coughs> jërëjëf sëñ Mourtala eh, leeraat na waaye bëggoon na maa xam foofu itam. Mhm. ñi ngeen di dimbalee da ngeen di toog xaar leen ci bureau bi ba ñu wax leen seen bopp wala da ngeen di dem ba gis ne gisal seen bopp ne kii jaadu nañu war koo defalum néeg wala kii jaadu na ñu war koo xottil ay yére wala kii jaadu na ñu war ko dimbali ci ndawul korité loolu nan ngeen ko mën a xamee. loolu euh, yàlla dafa dogal ne social dafa nekk euh, benn banqaas bu nga xamante ne dañ ko dañ ko organiser bu baax a baax ci biir association bi di Touba ca kanam gannaaw ba mu amee dalluwaay ca siège ba. Hmm. Eh, nit ñi dañ fay ñëw nit ki nga xamante ne am na yitte. Mm-hmm. ci wanag. Mm-hmm. yenn saa mu ñëw fa jàmbat la li nga xamante ne moom mooy yitteem. Mm-hmm. bu la ko jàmbatee nga déglu ko bindal ko soxlaam. ak fan la so fan la fan la dëkk mooy fan la soxla soxla boobu. terewut it eh, yenn saay ñu am ay recommandation nit mën a nit mën nay génn di def ab liggéey wala muy génn di dem ci barab romb kër ga nga xamante ne doy na waar. Mm-hmm. wala mu xam ka nga xamante ni doy na waar mm-hmm. mu def ko recommandation yooyu bu ñëwee da ngay bind mm-hmm. ndax lépp ci ay këyit lay dem dañ koy bind toog xaar euh, bu yàlla dogalee ba ñu jublu ca wàll woowu am nañ équipe ba nga xamante ni ñoom ñooy génn mooy génn dem képp ka nga xamante ni bind woon na lañ ca mën a jël ca jamono jooja danañ ko def ci list jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem seeti leen visite de terrain boobu nag day am ay bis lañ koy def mbooloo it ñoom ñoo koy def kenn ku ci nekk ci ñi bind woon te ñu tànn leen danañ dem ba ci barabam mm-hmm. fa mu dëkk waxtaan ak moom xool lan nga lan ak lan ak lan moom mooy doon yitteem mm-hmm. ndax lam waxoon ba mu ñëwee ca dalluwaay ba ca siège ba méngoo na ak la ñu fekk ca euh, barab bi nga xamante ne moom la moom doon sàkku mm-hmm. yooyu yëpp dañ koy gëstu ba mu leer nañ euh, bu ñu ko gëstoon nag ba mu leer ci la ñuy doog a mën a xam nag kenn ku ci nekk ci ñooñu ñan lañ cay jël ak bu ñu leen jëlee ba pare ñan nan lañ leen di mën a jàppale te sukkandiku ba tey ci soxla si nga xamante ne moom la waxoon ne moom la ñu moom la ñu yittewoo kon jàppale gi daal ci noonu noonu lay doxee nit ki mën na ñoo bindu waaye mën nañu am recommandation waaye benn bu mu ci mën di doon bala ñoo jël rek danañ dem gëstu ji ko ba mu leen leer ci mbooloo mi bu ñëwee rendre compte mbooloo mi ñu doog a xool ban doxin lañ cay def. si Mourtala day mel ne loolu kon ak te am na ci. Mm-hmm. waaye ab gëstu ba mu leer itam am na ci. Mm-hmm. ndax it nag euh, mbir buñ la ko waxee rek. Mm-hmm. jaadu na nga dem toppi ko ndax Touba ca kanam mooy doxe noonu mhm. ne di laaj lu nu man te di ko def fu ñu xam kon ñi nga xam ne ñoo ngi laaj eh, ni ñuy joxe war naa doon luñ man waaye yéen ñi koy joxe war ngeen koo def fu ngeen xam mhm. kon bëggoon na xam social eh, fan lay jëlee xaalis ndax ci cotisation yi lay jëlee xaalis ndax li ngeen li ngeen di nii budget bu rëy rëy la mhm. fan la ko social di jëlee waaw loolu moom mooy eh, jafe-jafe bi mën nañ buñ ko mënee tudde jafe-jafe bi gën a bi gën a bi gën a xaw a téye social ci liggéey bi nga xamante ne bëgg na koo amal muy problème mu fond ndax euh, ñëpp xam nañ ne Touba ci kanam bi ñu ko sosee sëñ Abibu Mbàkke ba mu ca dugalee kàddoom yooyu euh, ci laaj murid yi képp ku ko mën ñaar téeméer ñaar téeméer yooyu dañu waxoon ne ci dëkk bi rek lay jëm lépp la nga xamante ne moom moo mën a tax dëkk bi jëm ca kanam ca loolu lay jëm kon ba tax na social bi ni muy ni nga xamante ne moom benn yoon woowu rek la amagum ngir am am am ay fonds mooy ne euh, sëñ fàllu day génne ñaar téeméeri weeram xool ci euh, poosam leneen la nga xamante ne mën na kaa génn dugal ci social noonu lay noonu noonu lay fonds nekkul la nga xamante ne dañ koo sase waaye ki joxe 1000 francs yàlla dogal mu mën a am leneen lu mu lu mu teg lu mu génne jox ko social kooku loolu lay génn jox social Euh, dinañ am nag yeneen fonds yi nga xamante ne day jóge ci yeneen i kilifa. ya nga xamante ne yàlla dafa dogal mbirum social yitteel leen ñooñu euh, président bi sëñ am Mourtala moom sëñ Abdou Fatah dafa nekk a nga xamante ne ku yaatu la ci wàllu woowu ci am ay connaissance mm-hmm. yàlla day dogal nag euh, ñooñu nga xamante ne ñooñu lay xam dañ ci dañuy nekk ñu ñu ñu ñu ñu bëgg social te ba bu ñu leen waxee yitte yi ñuy dox mm-hmm. ci ay firnde yu leer dañuy sawara yëngu ci ci wàllu sociale boobu mm-hmm. kon ci ñaari ñaari wàll yooyu la ëpp luñ koy amee mm-hmm. waaye nag ci an at mii nga xamante ne ci la ñu ne muy 2022. Hmm. comité directeur bu Touba ci kanam am na lum ci am na lum ci lum ci def la nga xamante ne lu am solo la. Hmm. mooy ci événement yi nga xamante ne moom la ñuy def événement bu ci des bu ñu jot rek. Hmm. dana am la nga xamante ne moom dana ko barkeeloo ca événement boobu. suñu suñu defoon euh, tey jii ci xayma ne liñ ci war a def mu ngi toll ci ñaar fukk moom dana jéem a joxe fukk ya. social nag jéem a taaba taaba li jënti fukk ya. nan lay mën a def ba mu mën a ba mu mën a daj ña nga xamante ne ñoom la koy woo jërëjëf sëñ Mourtala euh, jërëjëf itam mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloo lu ñu seetaan euh, ñi bàyyi xel bu baax a baax di siyaare euh, nituk social xam naa nag sëñ Mourtala dañ ma sànni xeer waaye ma siyaare ko ajaratu moomi Kebe mu alaaj Njugo Kebe ak sëriñam sëriñ Abdoulaye nit niti social lañ yoo xam ne ñu ngi dund liggéey ci social lu wóor ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen ñaanal yàlla sëñ mu mel ne bi nga ñëwee ci social it ndax mën nga maa limal nga xam ne moo moom ngeen mujj def ci social ñaata ngeen ci génne ci xaalis nga xam ne moom ngeen mujj def moo xam muy koor wala muy korite wala koor ak kori lan ngeen ci fere ñaata. waa social bi comme ni nga xamante ne noonu lay doxee programme annuel lay teg ay li nga xamante ne moom laa tudd fii yépp ci euh, yi nga xamante ne moom lay def ci at mi lenn lu ci ne def na benn budget prévisionnel ne lii moom lañu ñu xalaata def. ci at mi buñ koy defit nàngam lañ ko xalaatee defee hmm. euh, événement yi mujjee génn nag mën nañ cee lim koor gi mën nañ cee lim euh, korite benn bu ci nekk it am na lu ñu ko nattaloon ne moom lañ ca bëgg a def hmm. su fekkee ne koor gi ñu ngi ko doon ñu ngi ko doon xayma ci 63 millions da nga xamante ne li mu teg bariwut moom lañ waxoon ne moom lañ ci bëgg a def hmm. euh, bañ ko xaymaa noonu it li ñu ko waxoon léegi ci sunu kàddu gu mujj gi comité directeur bu Touba Ca Kanam am na lu mu ca barkeeloo ba mu ca barkeeloo rek li ci desit Touba ci social bi moom moo ko dem lijjanti. waaye bu ñu demee bi ñu demee ba liggéey boobu jàll gis nañ ne la ca la ca la ca commission sociale def yëpp mu ngi dem 78 million nga xamante ni 63 nga programmé woon waaye ni ni ni liggéeyu murit di doxee. Mm-hmm. Euh, amut lenn la nga xamante ne mës nañ ko tëral ne fii lii lañ bëgg a def yem ca. Mm-hmm. wala ñu ñàkk caa egg. donte mën naa dem nag ba jafe lool ñu xaw a am njàqare mhm. waaye sëñ bi dañuy dañuy gàttandu mhm. murid yëpp dañ ci dañ dañ mel ni dañ li ñuy wax sot soto dañuy mel ni dañ koy yëgandoo ndeysaan waaw ñëpp dañ ciy dañ dañ ci dañ ciy dugg ak yéene mhm. ba tax na événement bu ci nekk rek bu ñu budgétiser ba teg la ñu teg danañ danañ ko danañ ko ëppal lu lu lu xaw a takk kon cinquante soixante trois la lañu la xayma woon yàlla dogal na demoon nañ ba soixante dix huit yi nga xamante ni def nañ ko ci euh, ramadan bi ba ci euh, korite gi ba ci korite gi korite gi dañuy dañuy def yu mel noonu moom ñu ngi xalaatoon lu toll ci 10 10 million yoo xamante ne war na caa dem waaye yàlla dogal na bi ñu demee ba nga xamante ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi pare ci cëppaandaw ga ba def sunuy rapport gis nañ ne 16 millions yi matal nañ ko nga gis ne lenn lu ci nekk rek bu ñu defee budget ba teg bu ñu demee ba mbir ma jàll euh, sëriñ bi dana ci jàpp ba Euh, cible bañ amoon dana gën a yaatu ndax koppar li ko li ko war a def dana gën a bari. macha allah macha allah loolu leen ko may mooy <clears throat> faaw ñu delluwaat ci ñaan gi. Mm-hmm. Eh, dañuy wax ne. waccal ilaahi maskani tuba abat mislas miha loolu mooy jëm ci ñaar téeméer yi nga xam ne moom la ñuy cotiser mm-hmm. waaye waltu basir bi yataama dawaa man insihim abaahum kullu ini mooy duggaat ci social mm-hmm. eh, kon day mel ne bi ngeen xaymaa 78 millions 63 millions dem ba 78 millions. korite gi ngeen xayma woon 10 millions dem ba ci 16 nga boole ko koor ak koor muy 94 millions yoo xamante ne dépensé ngeen ko ci njaboot gi te lu dul ne indi ma joxal leen néew doole yi rek la. kon dañuy xam ne ñaanu sëñ Tuubaa googu euh, fekk si na ci bu baax a baax. day mel ne sëñ bi mooy gàttandu ki dox jëm ci ñaan googu. Euh, ñu ngi lay jaajëfal di siyaare bu baax a baax Serigne Fallou Galas Mané moom itam nit la kuy dox ci social. ak Serigne Makhtar Diène. ak ñeneen ñi mel na ñoom ñëpp ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax kon sëñ Mourtala tabaski dëgmal na. Uh-huh. lan ngeen waajal ci tabaski gi dangeen leen di waajal ay xari tabaski wala dañ leen di waajal dimbali leen ci xaalis wala dañ leen di waajal ci ay yére ak itam ñaata yére ngeen programme ngir ñi nga xam ne seeni njaboot amuñu lu ñu xotti seeni soxna amuñu lu sol ñoom ci seen bopp buñ leen bàyyee duñ julli ji lan ngeen ci waaj. ok jërëjëf suñu Fallou ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziar di ziar mbokk yi nga xamante ne ñoom bi. Euh, tabaski it ni nga xamante ne niñ ko waxee léegi ci programme yi la bokk niñ ko waxee woon benn bu ci nekkin buñ ci jubloo am na budget buñ koy tegal am na programme buñ koy tegal tabaski nag euh, niñ ko baaxoo di defee euh, bañ ko tàmbaleek léegi mooy woo murid di fu ñu ne woo jullit yi fu ñu ne ngir ñu jàppale ñi nga xamante ni yàlla dogal na ne mënuñu ko ñu jàppale leen gën gaa néew ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy ay ndima hmm. yuñ mën a sol yi nga xamante ne buñ génnee mën a dem ca jullikaay ba dana nekk la nga xamante ne lu mën a lu yemm lay doon hmm. noonu lañ ko baaxoo daan woote loolu it mbokk taalib yëpp daan nañ ci daan nañ ci daan nañ ci barkeelu hmm. euh, jullit yëpp daan nañ ci barkeelu ndax fu nekk la ay ay yére ya nga xamante ne yu mucc ayib lay doon di jóge di ñëw ñu koy joxaat euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko yittewoo euh, duñ mën a wax ne sunu cible ci yére yi nangam la waaye mën nañoo sukkandiku ci li nga xamante ne moom lañ defoon ci at mi ñu génn. Mhm. ndax at mi ñu génn bi ñu dajalee ci li nga xamante ne rek euh, wàññi nañ ko ca dajale ba. Mhm. ñu ngi amoon mille pièces yi nga xamante ne tegal na. juróom fukki junni yére. ak ñett ak ñetti junni yu tegal. yooyu amoon nañ ko ci ay pièces. te yëpp joxe nañ ko yëpp dañ koy joxe. te ginnaaw bi am na yeneen yu fa ñëwaat. loolu mooy li nga xamante ne euh, dajale nañ ko compter ko ca euh, jamonoy tabaski ba. Mm-hmm. waaye gannaaw si tax am na yeneen yi nga xamante ne ñëw na. Mm-hmm. waaye yooyu moom moom la ñu mën a moom la ñu mën a wax ne moom la ñu joxe ci euh, tabaski gi ndax programme tabaski bi ko taxawoon a jub. Mm-hmm. kon ñun foofu la ñuy mën a foofu la ñuy mën a basé wu waat. mën a wax ne rek dinañ mën a joxe lu ëpp loolu. donte gis nañ ne ren xaw naa xaw naa xaw naa yéeme waaye niñ ko waxoon léegi rek. Hmm. lu ñu yaakaar na yéeme na yéeme na. Hmm. mbokk taalibe bi bu ñu ko yëgee day day day day day mel na mu war a mel. moo tax 53 millions yooyu moom nañ ko njort nañ ne ren mën nañoo am lu ko ëpp. Hmm. ndax at mu jot day day day gàcceel at mi nga xamante ni moom la moom la ñu weesu. Euh, ci ci wàlli euh, li nga wax léegi ci xari tabaski ñu baree bari ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy wax. di ko yaakaar ci commission sociale bu ci kanam. waaye nag dina jaral leeral ne bi ñu tàmbalee social ba léegi social musta joxee xaru tabaski mm-hmm. bokk na nag ci ay mébétam mm-hmm. bokk na nag ci ay mébétam mm-hmm. euh, donte ay ay ay gétt lay doon bu tabaski jotee mu teg ay gétt fu fu fu bu ñu xoolee kenn ka nga xamante ne yittewoo na ko gëstu gëstu ya ca war ba xam ne kii woon na ko ñu yeewi jox ko te yooyu it euh, murid yi rek ñoo ko mën a def. Hmm. ñoo ko mën a jàppale seen mbokk murid yi. Hmm. jullit yi rek ñoo ko mën a jàppale seen mbokk jullit yi. Hmm. waaye li ñu waxoon léegi ci ci ci sunu biir wax problème de fond moo ñu ko teree def waaye terewut it ñu ngi ciy góorgóorlu góorgóorlu gi ñu ciy def it mooy jéem a xool euh, ñi nga xamante ni am nañu euh, xel mu dal ci ne yittewoon nañu ko ñu jàppalee leen leen ci li leen ci jàppale mooy génne benn som ba nga xamante ne dañ leen koy jox nga xamante ne luñ ca teg. mën nañ cee amab gàtt. Mm-hmm. waaye li nga xamante ne daal mooy mébét bi dëgg-dëgg te mu nekk mën nañ koo tuddee défi ci mm-hmm. social. Mm-hmm. mooy dem ba yeew ay gàtt. fu waay mën a jóge te am ko yitte dañu gëstu ne leer na ci ne am na ci yitte. ñu mën koo jox ndax moom mooy tax mbégte mi ñuy séentu ci tabaski mu mën a mu mën a mu mën a mat ci borom kër mën a mat ci njaboot gi nga xamante ne moom la njaboote. Eh, jërëjëf mbokk yi ñuy topp yaakaar naa ne wax ji leer na mu mel ne kon murit yi nga xamante ne bii ñi ngi def ngir yàlla ci tabaski suñ doon jënd seen xari tabaski di ko jox Touba ca kanam danañ leen ko mën a séddaleel ci ñi nga xam ne aajo woon nañ ko te mënuñoo dem di ko laaji kenn te loolu yaakaar naa ne na ci taalibé sëñ Touba yool ñii jënd fukki xar ñee jënd ñaar fukki xar ñii jënd am nañ a jënd téeméeri xar xar yi fukki junni ak juróom xar yi ñaar fukki junni def yi nga xam ne dañ koy joxe ngir yàlla nga ne loolu yaakaar naa ne bokk na ci mébétum sëñ Touba ak ñaanum sëñ Touba gi nga xam ne ñaan na ko ci dëkk bi te jot nañ dana am kon yaakaar naa ne daal su ma bëggoon a xam limub xaalis bi ngeen joxewoon daaw ci tabaski daaw. Mm-hmm. ñaata la nga xam ne moom ngeen dimbalee new doole yi laata ñuy tëj jotaay bi. nga may ma delluwaat ginnaaw tuuti rek ci liñ doon wax léegi ci wàllu euh, ndimbali yi jëm ci tabaski wala mu jëm ci beneen événement bu dul tabaski sax. Mm-hmm. social ni muy doxee mooy li leen doon wax léegi nit ñi ñooy dajale. Mm-hmm. Euh, jàpp naa ne nag fu waay nekk ak secteur bu mu mën a nekk mën na faa nekkal social. mën na faa nekk social mook ña nga xamante ne ñoom ñoo fa ne te am ñuñ tane ca secteur boobu. mu joxewoon misaal rek ci marché ocas bi nga xamante ne jege nañu ci Touba. Hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk yàlla may leen euh, tuuti daraja ñu nekk ci place yu mag yi am nañu ñu nekkal ñu nekk ci suuf lal ay lal ay lal ay saako bu ñu bu ñu bu ñu dajaloo woon fukki nit mën nañoo jàppale juróomi nit ñu am xar. Ah, suñ dajale woon ñaar fukki nit dajaloo joxe li ñu am mën nañoo jàppale juróomi nit ñu am ñu am ñu am xar. loolu loolu benn jàppale la ba nga xamante ni nit ñi mën nañ koo jàppale seeni morom. Euh, donte social mu ngi ciy jéem waaye des na euh, laaj bi nga mujjee laaj léegi nag muy lañ lañ ci defoon ci koppar daaw bi ñu xoolee lépp li nga xamante ne defoon nañ ko ci koppar ci loolu ñu doon wax ne moom la ñuy jàppalee borom kër yi ci ñu dimbali ko ci wàllu njëndum xar mi. Hmm. ñu ngi demoon ci 12 millions yu tegal tuuti. Hmm. yi nga xamante ni séddale nañ ko euh, séddale bi ñii dinañ am lii ñii am lii. Hmm. waaye terewul lenn lu ci nekk rek bu ñu ko joxee borom kër gi hmm. lu mu ca dolli rek dana mën a dana mën a am xar hmm. kon noonu la noonu lañ ko séddale woon daaw 12 millions yi tegaloon na cent 160 mille francs. Hmm. te yéen a ngi koy séntuwaat ren. ren li ñu programmé gum. Hmm. Euh, li nga xamante ne programmé gum nañ ko ba jot koo recensé. Hmm. ba jot koo recensé. ndax bii moom moo gën a complexe bu jëlee wàllu tabaski moom moom moo gën a complexe ci wàllu recensement bi. boobu moom bi ñu bi ñu ko defee ba tey ba ba ba fii ñu toll nii di wax. plus de vingt millions programmé gum nañ ko. plus de vingt millions programme yi nga xamante ni xalaat nañ ne hmm. danañ ko mën a jot hmm. ba mën koo delloowaat ci mbokk bi macha allah jërëjëf euh, sëñ Mourtala Seck jërëjëf sëriñ Mourtada mu Cheikh Abdoul Fata mu Cheikh Mamadou Fadal ñu jaar baax soxna Fat Thiam taalibe maam Cheikh Anta di Baye Fallam di siyaare itam bu baax a baax mbokk yi nga xam ne waxtu ne ñu ngi yëngu ci social euh, di ci liggéeyal yàlla liggéey bu am solo ñoom ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal kon sëñ Mourtala yan kàddu ngay euh, yëb yóbbante mbooloo mi ak yan ngay tàggatoo. waa kàddu yóbbante yi naa ne lu gàtt lay doon xanaa jéem a soññaat sunu bopp soññaat sunu ngir ñu gën a dugal seen loxo ci mbirum social euh, dëgg la ñu ngi ciy jàpp seen kéemtulaay kàttan waaye gis nañ ne it mën naa gën a yaatu ndax li ñu wootee nekkut lu ndaw te it ku bëgg a woote ngir jàppale ñi nga xamante ne ñoom néew doole ci réew mii di Sénégal rawatina sunu dëkk bii di Touba euh, takkatoog murit yëpp takkatoog jullit yëpp mooy tax nga mën a am li nga xamante ne moom nga bëgg. dëgg ci loolu it ñu ciy sant bu baax baax ñi nga xamante ñoo féet ci bi ndax. événement bu ñu mën a def mën nañ ne ñooy bokk ca ñuy féete kaw. ndax euh, ak seen farlu ak seen nekk gi ñu nekk nit ñuy ñuy dimbale ñi nga xamante ne ñoo waa waa solution sociale la ñu bokk. ba ci biir réew mi am na ñaa xamante ne lim nga leen am na ñaa xamante ne ñu ngi ciy def te bëgguñu seen i tur. dëgg la mhm. bari na ci lool ñoo it ñu ngi leen di sant di gën leen a tàllal loxo. képp ka nga xamante ne it euh, yàlla dogal na nga bëgg a yëngu ci social bëgg jàppale ay nit aw bunt a ngi nii. boo ci jaaree incha allahu rabbi yàlla dina dogal ne lépp loo bëggoon mu egg ca mbokki taaliba yi ko yittewoo dana ca dana ca egg euh, ñuy sant nag bu baax su suñuy kàddu sant dañuy sant bu baax sa sëñ fàllu ak sëñ Fallou Silla ci dalal gi nga xamante ne dalal ngeen ñu di sant groupe waa Lamfal FM bi yépp di sant it kuréel gi nga xamante ne moom lañ bàyyi ko waa Touba ci kanam rawatina waa social di si jiital sëñ Mourtala ak équipe bi nga xamante ne ñoom la ko seqal buñ ci tuddee soxna Seynabou soxna euh, Ndey Diop sëriñ Baara Fall ak sëriñ Bay Siise day mel ne dañuy dañuy dañuy matal ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci nekk ñëpp waaye di sant rek ci tëj ñi nga xamante ne ñoom la ñu séqal liggéey ba ca fañ koy liggéeyee ku ci mel ne soxna benn jaxate ku ci mel ne sëriñ Basiiru Jaw ngir ñu mën a yóbbaale kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk wax dëgg yàlla seen liggéey rafet na lool ci wàllu social bi ak soxna maa ami mi nga xamante ni daanaka li ëpp ci liggéeyu social fi mu toll nii moom moo ko moom moo koy liggéey. kon daal ñu ngi sant bu baax di gërëm di jéggalu bu baax ci kàddu yi. <laughs> jërëjëf xam naa sëñ Fallou sëñ Moutala ni mu def si kim bi fonke ko ni bu ma ne rek dana am solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal mbooleem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun ci seen télévision Lamfal TV doon ko seetaan eh, di ziar bu baax eh, ajëf soxna Fat Seck Salihat bu sëñ Aline Thioune ñu ngi koy ziar baax di ñaanal nag social bu mag bi di Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha mm-hmm. yàlla na ko fi sun borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram ba naal yi mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko di ñaanal Cheikh Mamadou Mourtada mu Cheikh Abdoul Fatah ndaw la waaye ndaw lu jub la te bëgg lu baax te te te te te te te liggéey bi ñor ko yàlla na ko yàlla fàkkal yoon wi ba benn du ci dajeeg benn pakk te defal ko ay waajuram yi nga xam ne ñoom la seqal liggéey bi seen mbokk taalibe Fallou Galass Syll la woon incha allah beneen jotaay danañ ànd ak yéen ak Baytu Sakaat te muy beneen banqaas bu nekk ci euh, social euh, Touba ca kanam incha allahu rabbi danañ ci àndaat ak yéen danañ àndaat itam nag ñi nga xamante ni bii ñooy commission scientifique bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci daaray alquran yi bërki démb Njaay am na plate kii waajtaay wu mag wuñ def tudde ko ndabul daara nga xamante da jënd nañ junniy bool euh, jox ko benn quartier fas yéene daaray alxuraan ya fa nekk yalwaan miñ daan déplacé di dem ci kër di yalwaan yi léegi sarax bi moo leen di fekk si waaye ñoom duutuñu jóg di yalwaan yi ndax am yalwaan kenn mënu ko tere ab jullit waaye nag bu la sarax bi fekk see gën a gaaw te loolu la Touba ci kanam bëgg jox leen ndab bu añ jotee nga tibbal daara ji yët leen ko bu reer jotee nga tibbal daara ji yët leen ko te bañ leen jox maccaat ba aw des seen bokk taalibe Fallou Galass Syll la woon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu بسم الإله فن الدار يا الله سفي بقاء به لي فيك